tempérament bi rek moom moo mel noonu. c'est resté alors mais yow dañu gis nga bokk ci ñi nga xamante ne parce que ñu bëri dañu naan moment bi bu fekkoon ne yaa ngi toog APR ba léegi. Mhm. peut-être le poste de premier ministre. wala peut-être même conseil économique social et environnemental yow lay yow lay nekk ni 2009 nga jékki-jékki rek euh, ne nga dafa am benn mésentente entre yow ak euh, njiitu réew mi Macky Sall. da ngay nekk maire doo nekk maire nga nga nga nga gedd est-ce que moment bi boo toogee nii en 2023 est-ce que vous n'avez pas des regrets. regretté naa ko dama ko regretté yàgg na Adja regretté naa ko yàgg na. ci taxawaay boobu. taxawaay boobu puisque nee naa la j'étais fougueux tàng xol laa nekkoon te man kilifa wu ko woon kilifa bu la waree wax dëgg rek dama lay wax dëgg am na lu des ci man ba léegi d'ailleurs gis nga jamono yi bi ma nekkee prison. gars yi na ma gis nga boo gisee Macky Sall di la seetaan da nga dëgër bopp si tor nduur munoo am kilifa bu waxee benn nga ne ñaar loolu gars yi wax nañ ko ci man puisque dafa nekkoon ci man mais dama ko bàyyi te ñu liggéey APR ma nekk directeur des structures gis nga les cartes de membre de l'APR Sénégal ba bitim réew maa fekki nit ñi ci localité yi joxe ko man maa installé la partie ba ni may démissionné j'étais le numéro 3 de l'APR après Alioune Badara Cissé est le président alors donc moi j'ai j'ai j'ai beaucoup regretté cela puisque Macky Sall ne méritait pas ça en ce moment-là et l'histoire lui a donné raison dama ko bàyyi le peuple la le, le peuple sénégalais l'a plébiscité donc j'ai immédiatement regretté bien sûr et il a compris Macky daf ma xam. mais mais lu tax après Matar Ba moo la yóbbu ci ci ci moom malgré vos vos relations. non c'est-à-dire que dem sama dem ci moom. dafa am ñetti nit yu ci intervenir. muy kan ak kan ak kan parce que Matar dafa mel ni bokk na ci. Omar Youm. mel na maître El Hadj Omar Youm. moo ma njëkk ne est-ce que li nga ma may ma dox ko te boobu il était ministre des collectivités locales je pense quelque chose comme ça mu ne ma Sitor il faut nga may ma ma dox ko ma ne ko may naa ko mu am une deuxième personnalité muy Serigne Diop. professeur Serigne Diop. professeur Serigne Diop nekk médiateur. benn chef de cabinet bu tudd mbay Sène ne ma kaay wuyu Serigne Diop ma dem bureau mu ne ma Sitor vraiment man bu ma amee regret ci alternance bi yow la ah il faut que il faut que tu xam nga moom dafa dafa dafa xawoon a bar dër tuuti il faut que tu retournes au côté de Macky Sall maa la ko ñaan wax wax ba pare ma ne ko professeur mu ne ma ma ne ko may naa la ko. mais boobu. enfin Matar Ba puisque aussi naar bi euh, nit ki li mu moom da nga ko ko delloo. Matar Ba aussi. mais boobu amoo xel jiixi jaaxa. parce que vous aviez moment boobu un discours très musclé mais pour rien au doo dem fekk ji. no non et puis da nga temps yooyu dama créer sama parti Elan. Elan dugg ci opposition. ñu ñu ñu ñu ñu ñu créer la le FNR le Fonds national de résistance ñu nag ñoom Omar bu PDS ñoom Mamadou Diop Decroix fa fa kii Rock Mbalax naka la tuddati woon. Demba Dia Demba Dia Rock ñoo ñoo créé woon le front de l'opposition en ce moment ma nekk ci nag ku dynamique bu ñu demee point de presse yeeg yooyu ma toj ko mais nag li ma yàlla may mooy nit du ma wax ci moom lu ñaaw gis nga niñ ma vaare ma ne du ma ànd teg Macky bu ma waxoon ci moom lu ñaaw noonu lañ may vare je n'ai jamais fait ça et Dieu sait que quand j'étais avec Macky Sall naa énormément de secrets mais adversité mosul tax ma génn benn secret bi ngeen janoo quels ont été les premiers mots entre yéen ñaar fële palais présidentiel ou bien daje ngeen avant. non non daje wuñ avant. pale ngeen daje. palais lañ daje. bi ma ñëwee toog salle d'attente pale le ministre d'État Mbaye Ndiaye daa ñëw ne ma eh Ondébès eh mais ça c'est bien Ondébès mooy sama rakk quoi en séeréer ne ma ah non audience bi dama koy fekkee ma ne ko pourquoi pas mu toog ñu servir ñu café ñuy waxtaan. y avait Ba mi nga xam ne moo ma gunge woon moo ma gunge si woon ne ma président nee na dalay lay recevoir bu joxee drapeau bi à l'équipe nationale ba pare xam nga ban compétition la woon. c'était en janvier alors ma toog noonu ndekete le mon ami Boun Abdallah Dionne moom tam yëgaloon nañ ko audience bi mu ñëw c'est un ami de longue date nag grand rek la may woowee musul jaar sama tour grand Sitor sax du ko wax on a fait la primature ensemble mu nekk suñu DC man ma nekk chef de cabinet ñu dem assemblée nationale on a fait ça ensemble ñoo am de bonnes relations donc ñun ñooñu la woon ak le président Macky mais gis nga audience bi mu commencé euh, Macky daa Macky Sall daa bàyyi gars yi ñu wax bi ñu waxee président Macky Sall wax. ma dal di ko taquiner xam nga man j'ai beaucoup d'humour te gis ngeen président Macky Sall mi ñu naan ñàngal il est tellement sensible à l'humour man fu ma wéeteeg moom day ree ba sonn ma bàyyi ko rek ñoom ñëpp ñu discours président Macky Sall jël discours ne ma wuy fii sa famille la si toor ton parti la teg ko ci suuf tu reviens vers bi mu expliqué yooyu ba pare pour tooñ ko de décrisper un peu atmosphère bi ma ne ko président mu ne ma ma ne ko gis nga tàngalub ñam seddalub ñam bu tàng bu yàggee jooyu mag sax xëj na ci waxamatuma jooyu xale yow sëñ bi yéex nga maa woo rek mu daanu. <laughs> yéen ñaar loolu ngeen mu daanu maa ko wax loolu mu daanu mu ne ma décidément si toor ne changera jamais rek nag affaire bi délié wu mais gis nga dañu puus tuuti Mbaye Ndiaye ak Matar ba ñu ngi may dégg de du ma fenal kenn Mbaye Ndiaye ak Matar ba ne xaaral ñu may leen. ngeen yeggali seen waxtaan ñun suñu jaan wàcc na ñu daal di génn ñu des ñu des maak euh, Boun Abdallah Dionne ak le président Macky Sall ñu dem ba aborder benn thème Boun Abdallah Dionne ne bërët taxaw eh yéen ñaar ñi xam naa leen xajatuma seen diggante génn bàyyi. ban thème la woon. ñoom ñetti ñëpp ñoom ñetti ñëpp ñu ngi may dégg may wax nii te xamewuñ ma fenn du ma kàcc Macky Sall moom may dégg te bu ma waxee li yokk ci dina ne waa comment grand bi kat. dañ ne ko li dugg. ban thème ngeen wax. dañ doon wax mag moom ci sama dellu ak li ma nekkoon chef de parti ak ban gëdd la may jox au sein du parti ci la ma waxee ne dinaa la intégrer au secrétariat exécutif national qui est l'instance suprême de de l'APR d'accord puisque chef de parti bu ñëw foofu laa koy dugal mhm. bon ensuite on a voulu aborder ay postes ma ne ko président mu ne ma et ça c'est important puisque ñu bëri dañ foogoon ne transhumant là pour ay affaire u poste mu ne ko président mu ne ma ah ma ne ko bool bul laal lool mu ne ma ah ma ne ko bu ma sañoon da ngay xaar ba 2017 ba ñu falaat la ba pare ba ma amaat une certaine légitimité loo ma yéene pour ma jàppale la foofu nga jox ma ko. xam nga li tax ma ne 2017. parce que jamono yooyu dafa ne woon mandaam daf koy écourté du jël 7 ans yi. 5 ans lay jël 5 ans lay jël d'accord. donc 2017 moo waroon nekk normalement élection yi. mais xam nga lan na ma tontu. Hmm. pour que jàll. dafa ma ne ah non non non s'il y a on te donne un sitor pourquoi pas c'est pour travailler c'est pas un cadeau loolu la ma toog